wasilati mooy sayidi cheikh murtadaam cheikh saaliw ana ñi bëgg borom jàppandal borom daaru minam borom alimul xabir borom daare daaru tansiir borom jannatul maxwa ku sopp cheikh murtadaam sëriñ saaliwa bismillahi abtadee saa way wi man li sayidi wasilati mooy sanadi Cheikh Mourtadaam Cheikh Saliou Cheikh Mourtadaam Serigne Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal asalaamaaleykum Cheikh Mourtala yow mii ngi lay nuyu di la siyaar di siyaar Cheikh Mourtala Mbacke mu Serigne Saliou Mbacke suñu sëriñ suñu wasila suñu lépp ñu doyloo ko bëgg ko muy suñu sëriñ muy sëriñ bu baax nag bàllay sa ñu nag suñu taxawaay fii ci waañ yi mooy toog rek di jox donga yi ci barke Cheikh Mourtala Mbacke ñuy togg di jox donga yi di yàq di jox donga yi ndax suñu sëriñ jaral nañu lépp bàllay sa ndax mooy sëriñ bi boolewul daraa ki wax mooy sëriñ bi doon suñu ilimaan teg ca dañ koy ñaanal yàlla na wér te bu wéreet yal na gudd fan te bu guddee fan yàlla na barkeel ci barke yontu yàlla Muhammad te addiya yal na yomb dongaam yi ci barke Cheikh Mourtala Mbacke mu sëriñ Saliou mu sëriñ Touba ñun day sant nañu yàlla bu baax bi ñu àndeek Cheikh Mourtala Mbacke sëriñ Touba boole ñoo moom muy suñu sëriñ di suñu lépp sant nañu bu baax sant nag dongo yu góor yi sant dongo yu jigéen yi ñëpp daal sant nu leen. sant sama sëñ bu baax bi ne sëñ Moustapha Ndiaye ma booleeg sëñ Saliou Mbacke sant nañu bu baax a baax ñu ñaan sëñ Mourtala moom sëñ Saliou yàlla na fi yàgg te ak ay magam. ak ak waajuram ak soxnaam yeeg njabootam yëpp daan fi yàgg te wér ak taalibe mi nag ndax taalibe ñëpp am pësteef ñëpp a bëgg a liggéey sañ sëñ Moutala ñëpp a bëgg macha allah Mbàkke yàlla fi yàgg te wér yàlla na barkeel yàlla sunu gën a dooleel ñëpp am yéete ñëpp am ñëpp ko bëgg liggéeyal macha allah macha allah nañu fi ci Xelcom parce que ne liggéeyal nag ba liggéey bi jeex ñaan sunu borom yàlla tas la ci ngërëmu sëñ Saliou Mbàkke ndax liggéey sëñ Moutala ne sëñ Moutala toog naa moo wax ni lépp lu ñu liggéey rek sëñ sëñ Saliou ko moom kon ñu ngi ci sàkk ngërëmul yàlla ak yonte bi ak sëñ Touba ak sëñ Saliou Mbacke ñaan yàlla suñu bi lool lool lool yàgg koo ma bëgg man yaay ak Ablaye Ndiaye ñëpp a ma a ma wax yaay te ba dee ñëpp a ma teg place seen photo yaa dooni baree baree bari borom caméra ñoo ngi lay sant di la sa liggéey ñu ngi kontaan ci laaj bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi ci waañu kër sëñ Moutalla Saliou daayira nax bu xadaay xaaj comme ni ñu ko doon waajee chaque jour rek lañ ko waajee ànd seeg suñu jëwriñ Assane Fall ak euh, Seydina Aliou ak ñoom Anta Toob ñoom Màgget ñoom ñëpp ci waañ yi comme ni ñu ko daan waajee rek ren moom mbooloo mi xaw nañu ëpp doole tuuti waaye sëriñ bi dina matal lépp incha allahu rabbi waaw am nañ ci rafet njot bu bu ndax daaw lu ñu defoon ci ay mbanaak lépp yokk nañ ko bu baax a baax bëgg liggéey bi gën a rafet rek waaw loolu daal la ñu ne woon yaakaaruñ ko nag yaakaaruñ ko waaw yëpp incha allahu rabi dina mat incha allah waaw waaw daal lañ koy doxalee ci waañ bi waaw ànd seeg jëwriñ Assane ak mbokku taalib yëpp ak Baye Fall yëpp ñoom ñëpp ñu ngi ci waaw ñu ngi leen bu baax a baax a baax aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuba kàddu yi sant lay doon rek ak uh, doole gërëmaat sëriñ bi rek di ko ñaanal sëriñ suñu borom yàggal ko fi lool doole ko wér bu baax ba nga xam ne li mu am yéene yëpp suñu borom dina ko mottali te ñu ànd ko ak moom waaye taxawaayu mboo ko taalibe yi moom ak taxawaalu taalibe yi rafet na bu ba àgg si lool ndaxte maanaam u si nekk daal dina si doxee yéeneem joo xam ne da ngay xam ne lii kii bi soñoon lépp rek moo koy def waaye xam ni rek sëriñ bi ñu koy defal am na pay te jar na ko it xam nañ ni moo tax lépp lu luñ ci mën rek ñoom ñu koy def da ciy nekk koo xam ni leer na yaa ko moo la war a yilis sax waaye boo ko nee jaaral fii du teg baat kon loolu xam nañ ni xooleewuñ ñu jëmm yi waaye sëriñ bii lañ tax a jug rek ñoom loolu la ñuy xool kon saa su nekk képp koo xam teg na fi tànkam daal noo ngi ñaan sëriñ bi dëbb la kàttan bu baax ba lépp loo am yéene rek nga mottale ko bu baax a baax yéene joo am ba teew fi dara bañ cee manqué ba maanaam ku nekk rek am lu kawe njortam si dikkam fii ci ci toolu Serigne Saliou yii nii te xam na ni itam sëriñ bi maanaam mën na lu ëpp loolu te ñu ngi koy njort bu baax a baax a baax kon liggéey bi daal comme ni ko sëñ suñ jëwriñ waxee mooy matale na ci bépp boor xéewal yaa ngi fi lépp a ngi fi te lépp rek mbokk taalibe yi ñoo ko taxaw ngir jëmi sëriñ bi ngir bëgg képp koo xam ne teew nga fi rek si liggéeyal si liggéey suñ tubaab bii nii nga bañ a tumuranke sa lépp jàppandi ba boo delloo gën a mën a sant ndax xam na ni mbokk taalibe ni bu ñu fi teewoon te xéewali woon tamit sëriñ bi jaral na leen waaye nag xéewali moom lu ñuy barkee loola rek waaye nag ñu ngi ñaan sëriñ bi tamit dafa ñu tawfeex ñun ñëpp ba lépp mën a jàppandiwaat ba mu déwénee ñu teewaat bi kenn bañ a manqué bàcc suñ tubaa baax mooy sayidi cheikh murtadaam cheikh saaliw ana ñi bëgg borom jàppandal borom daaru minam borom alimul xabir borom daare daaru tansiir borom jannatul maxwa bu sopp Cheikh Mourtadaam Serigne Saliou bismillaahi abtaday saa way wi man lii sayyidi wasilati mooy sanadi Cheikh Mourtadaam Cheikh Saliou Cheikh Mourtadaam Serigne Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal ndëndal ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ka tey fësal ci saab galañ delloo njukkal